bis sa bis ah waa kan loolu loolu la branché fee filmé téléphone bi comme ça sama téléphone moom la filmé waaw wekk sax wala gay day wala ngay 2000 lumi mu indi INSEP la bëgg woné dé ma ngay ciokkas kenn ci buntu kërëm dé cey bala le lion de Guédiawaye xeexuñu xuloowuñu daa mel ni seen yaay laaj seen ci buntu bi non wala du mom non seen mag bu jigen la seen mag la gis nga ñom ma sha allah dañu am taxaway comme seen papa seen papa dégg na bu masaan taxaw ci buntu du duggu il faut mu seug seug seug ba yam ak oomam yi mu sogo duggu ndax nekk géant cey waa kër Double Less macha allah tubaarkàlla macha allah waa kër Double Less isaan di leen sama consultant yaa ngi may yërndu xanaa la may wax a neex wala la may wax daa soof ah yow gaan yow gis nga yow naa la bàyyi de waaw ndeysaan gis ngeen euh, bala Gaye ngi noonu di def ay débat débat moomit it pour jàppale rakam xam nga di def ay aller retour ndeysaan xoolal buri bàccili buri bàccili moom it mu ngi def ay affaire ah di yor téléphone di woot ka mu xam dana ko pour dimbali séeréem mu daan lonkal ma li ay waay dina ko dimbali <laughs> yaakaar naa Sa Thiès li des mu génn bareetul yaakaar naa li des Sa génn bareetul waaw gaa yaa ngi noonu di def seen organisation ci buntu kër gi waaw am na lu fi xewoon sànq nag am na lu fi xewoon sànq ah, yaakaar naa xabtal gi dafay bari doole xabtal gi dafay fooroon buri bàcc li mu ngi yor benn mbaxane mu rouge waaw mbaxane mi Balla Gaye soloon la buri bàcc li jël xaw ma lan la ciy def nag waaye yéen waaye yéen waaru wu leen même eh yow même jabar yi sax dañuy mystique yow dañuy xarfa xuufa eh waaye eh nobaate nga waay buri ah buri tigéey lay séddale noonu waaw noonu la sa jëkër bu xewle da nga koy jàppale jigéen day jàppale borom këram. ndaysan nit boko nobe dang koy dang ci fer dang koy woné waw panu ak non yor panu galaas di genn yakarna lu sedd lan bëgg jamm ndaysan genn ci jamm dem bëre ji ci jamm ñëwaat daan ci jamm yakarna wa geej wa lu loolu bëgg ndaysan ah sama ndijay tay bés bi du yombu ala daw na bés bi du yombu waw wa geej wa ni la seen genn du yombu seen dugg ci tam du yombu ndaysan lambangi lamb daj des fois nga lamb do fekk dara waaw waaw malako wax xolal ñi taxaw ci naaj bi rek li yeb sen sen sen dooma ko jar nek ben nit yalla tan la ci kon na nga wara a ñi xol leen bëreeg ñoom ndeysaan glace gi ñi sul yow ay sama jine cameraman jëlal ma lolu yow ay way sul leen ben ba pare xol da mel am benen bu nu sulat cey débat cey xar fu ko ku ko gëmul xar fa ne la eh xolal lolu yow anda galas yi di sul, ak galaas na mu me nanti kolon lolo, ndeysaan sul wow wow, sul waaw wow eh, wow, lambangi lambangi, mana kau lamba daj lambangi ngi yaakaar naa li des pour Sa di di war waa Tivaouane Peulh rek bu baax di bëggee waa Malika sama dëkku yaayu Malika ak Pikine ndeysaan géejawaay gii tey ji sama nijaay fii la dëkk tey ndeysaan di di bëggeewaat waa Tivaouane Peulh di bëggee waa cité Darou Salaam waa ko waa commune Tivaouane Peulh ñàgg di leen bëggee ñoom ñëpp waa di nuyu suñu monsieur le maire Mamadou Ba yow la ñu ndamoo yow la ñu tiitaroo sa rakk Basirou Ka yow la wóolu sa rakk euh, euh, Bayal yow la wóolu saan di nuyu la grand di du village de Tivaouane Peulh ndeysaan di si nuyu maire sama doom ndey sama turandoo doom di leen bëggee yéen ñëpp di jox seen wàccuwaay du ñu lim nag ku ñu lim juum di di ziar sayer DG wu zone TV di ziar sayer bu baax e, di di di bëggee sama cameraman bi wax si pro ndeysaan dama ko woo rek mu ne ma nan dem nan dem ndeysaan waaw ndekki sax jaaru ci man rek maa naan kafe waaye moom ndekkiwul naanul deful dara mu ngi nii di sonn ndeysaan waaw loolu rek liggéey bee ko jar waaw di nuyuwaat DG wu télé bi Basirou Ka borom Medinatul Njulul Wow, borom terrain yu bax yi borom kër yu karena yi saja yaakaar naa li Wow, gene bare yang de. waaw kiri gaay yaa kiri ci kaw. kër yi kër yi wër ak ñom yëpp. kër yi dend ak ñom yëpp gaay ci balcon yi di yërnu ndeysaan xolal ma ki yor cruz gi xolal ma ki ak cruz gi rek ndeysaan Lift ci def ay ñaan xam nga ne dëkkandoo dekk dëkkandoo mbokk la dekk ndo mbokk la. ndeysaan xoolal lii rek xoolal xaluma xale jigéen ci balcon yi sama man jël ma loolu xoolal ñii ci balcon yi ndeysaan lii yëpp bëgg seen doom daan bëgg seen doom am ndam ndeysaan ah ndeysaan lamba metti na waay ah lamba metti na waay lamba metti na waay ndeysaan ah cái này bao nhiêu Mày phía đó bắt khách. Đâu mà? Waaw fii nga kenn mënu fi ñëw. waaw fu mu doon jàll. liggéey bi mënoo liggéey sa nga ne waaw. waaw waaw. yow cái gì? sànq yi ñu gì दुसरं गाव आहे Amele Sanchez li des Sanchez génn bëreetul de daa waaw waaw ndeysaan supporter nee nañ daa war a génn yàkkamti nañ de daa mel ni sax mbir mi borom bi ndeysaan sànq gis nañ fi Balla Gaye 2 di ndeysaan ndeysaan lambaa ngi lépp ci ay organisation lépp ci ay tegtal ndeysaan xoolal ma lii rek ndeysaan waaw ah, waaw ambiance a ngi noonu ndeysaan ndeysaan ndeysaan daa mel ni daa mel ni néeg boobu may seen fële balcon bale ci kaw daa mel ni ay sëriñ kese lañ fa denc daa mel ni ñu ay maara lañ xool leen ñe ñe juróomi paa lañ waaw ñeenti paa ak benn jeune xoolal juróom benn am na keneen ku taxaw noonu ñooñu daa mel ni daa am lu leen jox lépp ci xarfa xuufa yi la jëlal ma loolo waay ci kaw ndeysaan xoolal kooku mu ngi yor bal ci loxo bi bal bu ndaw daa mel ni bal bu ndaw la yor de cey bal bal daal moom daa xew ci làmb waaw mom la ah, ah bal bu ndaw bi ndeysan waaw deug la ndeysan ndeysan xolal ma lii rek lamba bari tegtal ndeysaan xoolal xoolal ma ñooñ ci balcon bi waaw juroomi sëriñ leen xawma juroom ben ku nekk nga yor sa kurus da melni ñom ñoom ñoom lañ utal neeku spécial di ñaanal Sa ties ey xarfu xufa xolal ma xarfu xufa gi ci lamb ji yow xolal ma mystique bi ah Sa Thiès caaxaanewul bëss bi xolal ma li ñu ngi tiim balcon bi mu ngi yor bal ci loxo gi waa ji sol t-shirt bu blanc bi ñu ngi jax ay tegtal noonu gis nga doomi doom bi Double Less gii saa ca caaxaanewul combat bi ay waay ma lii ah, bu sita moo tey bu mooy mo mook tarbaxa ay bu sita bu sita yaa ngi bëre ku takk ku laxale bu sita ak tarbaxaa eey loolu ndeysaan dara du yomb tey ndeysaan